Euh, autant que pour moi mm, euh, euh, tey dinañ tay a mën a li nga xamné que modi di euh, confirmer décret wala kon projet de loi euh, projet de loi bi nga xamni itam euh, tay ji jàll na fa nga xamné ne assemblée nationale ñeel li nga xam nekk moo di amnistie bi exactement alors tey Madiambal Diagne Diancou tan daal koy annoncé si li nga xamné que modi di mm, par rapport ak la libération euh, bu ki nga xamné que modi Ousmane Sonko que ni instant bi ni tout est fin prêt Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye vont sortir de prison ce mercredi 13 euh, mars 2024. Le président va promulguer exactement euh, la loi d'amnistie qui n'a pas fait l'objet euh, d'un recours en inconstitutionnalité exactement. Ban xalaat nga si daal ah, comme ñëpp la xam nga dañu né loi mo né moment loi bi l'Assemblée nationale ak moment bu koy promulguer day y day nek euh, écart normalement 10 jours maintenant 10 jours nous ñu xaar ndax nit dina def euh, amendement. Mm. dina ne attaquer donc loi euh, durée de validité de la loi ba 10 jours yi tombé mercredi tombé 10 jours Macky Sall tey normalement dina promulguer loi bobu normalement tay war na promulguer bu ko promulguer ba paré ñu la la minute qui suit normalement war nañu génne Ousmane Sonko ak Bassir Diomaye Faye ci kasso bi normalement loi lool la wax droit lool la wax moment bu muy président di promulguer loi bi ñu publier ko ci le journal officiel de l'État du Sénégal. Mm. normalement après loi bobu duguna en vigueur. Mm. bu duggee en vigueur ba pare. Mm. képp ku laalee donc ci loi boobu. Nous devons donc normalement appliquer la loi. si nous appliquons la loi boobu Mbassir Diomaye Faye ak Ousmane Sonko dinañu leen libérer. Hmm. que ça soit tard dans la journée toutefois si nous bu la loi nous rek dañu euh, libérer. que hmm. ça soit tard dans la nuit que ça soit dans la journée. Hmm. normalement nous devons ñu war maintenant l'État état du Sénégal a daf ñu tàmmal benn mbir même bu promulguer tay mën na mbir mi dans ce cas c'est une détention arbitraire la non conforme avec la loi. ok maintenant bu fekkee tey génnewuñu ci euh, comment de génnewuñu leen tey ba pare président promulgué la loi tey parce que tey tey lay def conférence des. Hmm. comment hmm. de conseil des ministres. Hmm. maintenant ci conseil des ministres boobu bu fekkee moom déclaré na promulgué na loi bi ba ñu dugal loi bi publié ko le journal officiel de l'état du Sénégal te Ousmane Sonko wala donc ci loi mm. la ci. Mm. donc ce qui veut dire que ñom respecté wuñu loi bi. Mm. ci moment détention arbitraire détention arbitraire moo tax ñu jàpp ni que Ousmane Sonko ak Bassir Diomaye Faye normalement c'est fort c'est fort probable que nous leen tey euh, sa promulgation euh, mooy synonyme la libération de tous ces détenus politiques mais c'est ça Il est ce cas bi nous a libérer képp koo la loi est venue La laale nga ci wala euh, mars 2023 exactement xam nga dañu loi est dafa le le er février 2021 au 24 février 2021 vingt-trois mm. deux mille vingt-quatre mm. donc dañu ne fourchette boobu diggante boobu képp koo xamante ne bokk na ci jéye boobu wala les faits qui ont été constatés ci euh, intervalle boobu la ñuy amnistie mooy maanaam dañuy effacer dañuy effacer ces faits là maintenant bu fekkee dañuy effacer ces faits là te Ousmane Sonko ak Bassirou Diomaye Faye on a vu les charges retenues contre eux. Euh, boy euh, euh, entreprise terroriste force occulte tout ces ces ces ces c'est ay qui kii yooyu délit la libération de Ousmane Sonko et Faye a koy automatiquement. Mm. automatiquement ngay am enthousiasme di am ce sentiment donc euh, <laughs> peut-être hein, ni que Ousmane Sonko tay dinañ ko bàyyi wala Basir Diop ak basir Diomaye c'est normal ana kay le président décidé bañ promulguer loi bi tay normalement tay la koy promulguer. mais si yoon euh, dix jours yi tay la mat. tay la mat donc tay la war a mën Mais tey la euh, normalement mais promulguer ko exactement. Mm-hmm. la suite. bu fekkee promulguer ko dans ce cas de figure il n'a pas respecté la loi il n'a pas respecté la loi tout simplement que ça euh, loi bi dafay naxasaay wala. non non tout naxasaay mais moom moi, je respecte. moi, moi, respecte le timing. Moi, moi, respecte le timing. Hmm. dans ce cas day waroo à constitution bi le hmm. après je ne sais pas suñu institution judiciaire yi lan lañ koy wax après. parce que oui c'est ça. Euh, gis naa waa Pastef ñu hmm. non à la diversion exactement ndax jàpp ne ni euh, Benjamin Diagne da <laughs> divertir ouais ouais mais vraiment, tamit mën am diversion diversion. parce que aussi <laughs> nga jappé ni que dinañu libérer libéré Diomaye Faye ak Ousmane Sonko coûte que coûte ba paré état def Mais la quand on est au Sénégal <laughs> da ngay xaar lu né lu né mm. lu né fi. Mm. lu fi. Mm. nañu promulguer loi bi ba paré ñu ñu Ousmane Sonko ak euh, voilà. suba wala suba pour ne serait-ce que nous prédiroon mu bañ a tombe juste c'est-à-dire que état à un moment donné il peut faire démentir il peut démentir des gens comme nous avons woon information à l'avance ni que tey la ñuy Ousmane Sonko wala Diop Bassirou Diomaye Faye l'état mën na voilà comme noonu la demee ma mën naa promulguer loi bi tey pareil, pare du ma leen génnee tey ma xaar bu suba wala vendredi. ma libéré la mais avant kii di Cheikh Yérim Seck Madiambal Diagne. oui ak Maimouna Faye li ñuy wax. dul am. Oui, ouais mais lola, Manela, c'est des amis du pouvoir Madjambal Diagne Cheikh Yérim Sek, c'est des amis du pouvoir c'est des communicants du pouvoir c'est des journalistes aussi du pouvoir Madjambal Diagne et Cheikh Yérim nous avons déclaré publiquement c'est c'est des alliés du président de la République Et aussi dañoo sës ce c'est ses proches collaborateurs Madiambal Diagne ne cesse de le dire publiquement chaque jour moi wax ko. Diagne il fait parmi des gens qui ont donné l'information en premier en premier scoop moi madame l'exclusivité moi on a vu Madiambal Diagne presque peut-être démb goudi, le publier nous bëri lañ ko Twitter il ni que la il a publié la nuit moi je l'ai vu la nuit il a publié yi bëri hmm. ça fait un bruit.

dama koy dama koy xaar ba taar la nuit wala ma xaar le jël le suspense ba suba. ba gars yi ko ba gars yi ko ma génnee leen. ñu ne leen ñibbi leen seen kër. moo tax la état mën na def lolu xam les décisions de l'État aussi et les décisions euh, populaires c'est pas la même chose. nit mën na jàpp ni lii lay demee euh, état def la euh, xam na ma jaba jaan du wax si neen exactement mais mais amna dara lu ci si seet. way nee ma jambal Madiambal Diagne mën na recevoir l'information mën recevoir des informations parce que moom ci bokk ci boobu la bokk ci nguur gi la bokk Madiambal Diagne Cheikh Yérim Seck nee naa la c'est les communicants du pouvoir état bu amee xibaar bu muy tas ñoom lay njëkk a envoyé information bi que ça soit Madiambal que ça soit Cheikh Yérim Seck ñoom ñooy njëkk a recevoir l'information. Hmm. oui ñu distribuer l'information wala publier ko dans leur page c'est Yérim c'est publié quoi dans Poste Yérim <laughs> Madjambal Diagne publié dans Libération. le quotidien le lundi de Madjambal Diagne c'est comme ça. Moi, tax ma la information état même mais aussi état ne dit pas aussi Si j'ai information Madjambal Diagne mu constate que les la vie de Basir Diomaye ou bien de Ousmane Sonko sont menacés. Mm dina dina dina recaler aussi comme adresse euh, l'heure de leur libération. Mm, mm. mën na ko jusqu'à minuit wala 2 heures du matin. état à xam alors donc état à xam donne euh, libération bo xamni ni itam euh, annoncé nañ ko mu nekk ce serait une bonne chose quand même ñu war leen libérer. Euh, parce que gis naa déet ah déet xam nga yow une bonne chose normalement une bonne chose pour tous les sénégalais wala ñu faree ci Bassirou Diomaye Faye. pour tous les sénégalais mais am na ñoo xamante sëñ euh, Fallou sëñ Fallou sëñ Fallou ah. wax naa la si suba si. Hmm y a des opposants yo xamantene un ñett catégorique dee mo len gënal. ñu génnee Sonko ak Bassirou diomay fay pour des raisons que nous tous nous connaissons. Euh, El Malick ngay nee li kasse kese gis nii Sonko ak Bassirou suñu suñu. mais loolu la imagine Bassirou Diomaye Faye ñu génnee ko ak Sonko tey ñu dem battre campagne mais yenen candidats bu yeboo nañ dem toog. way yàq di essence. jeex na. moo la peut-être amana ñun Sénégalais ñoo bëgg ñu libérer ñoñu mais amna ay opposants amna na ñoo xamante ne musuñu ñaan yalla ñu libérer Sonko wala Bassirou Diomaye fay pour des raisons politiques. Mm. pour des raisons politiques. Mm. parce que dañoo jàpp ne bu ñu libérer Sonko wala Bassirou ñu nar a ñëw taxawandoo ci auto yëkëti seen loxo imaginaire lolu qu'est-ce que ça va faire Sëñ Fallou. Hmm. mba di di dina am lu desee pour yenen candidats yi loolu mooy wax ci imaginer des gens emprisonnés mais fu ñu romb nga gis mbolo mi rire

tëdd doom kii comment tudd doomam Ousmane Sonko. doom bu jigéen ko mu ne ko tuddee naa la ko Ousmane Sonko il a eu trois cent vingt cinq turandoor hmm. ñu ne la cinq ay jigéen la ñu loolu lañuy ñuy wax imagine ñu ñoo xamante dañ lay ne Ousmane Sonko su ma woon sax ma daanu ci ci ci kii bi si si si euh, si teen bi ah. ma daanu si teen bi fii imagine ñu mel noonu tey ñu koy ne leen dañoo bàyyi seen waaj yi dañuy bi. na ci mhm. exactement. moo tax ma ne la loolu Sénégalais yi amaana am na ñoo xam ne ñu koy xaar. Eh, mais am na ñoo xamante ne ñoom. foo leen fekk ñu ngi ñaxtu rek di mattu rek di naan non man Macky non mais loolu c'est ça la réalité politique. alors euh, bu am. Euh, allah kulli ali ken mënu si dara mom en tout cas c'est une bonne chose et que je pense que Macky Sall mi ngi si boobu li nga xamné ko modi logique peut-être pour aller di war a mën rafetal demam exactement alors mhm. euh, FIA aujourd'hui euh, annoncé woon nañ ko déjà euh, la libération bu ki nga xamné ne modi Ousmane Sonko ak Bassirou Diomaye Faye ban jangal nga si def. Euh, sëñ fàll loolu moom neex la rek. neex mm. plus neex. Mm. Euh, ndax ñoo xam ne ñoo ci kaso bi euh, gis nga terewul ñi ngi ñi ngi amel seen i campagne dëkk bi di yëngu. Mm. réew mi di yëngu. ndax man damaa xam ne man ni ma mel ci koor man fi mu toll sonn naa mënatuma dara bu ma ndogoo ba naan kafe rek. sama àdduna tukki na kenn du ma wàcceloo sur le terrain mais da ngay gis ay kilifa yoo xam ne dañoo wóor ba ngoon bàyyi seen lépp jox seen seen temps bi yëpp Ousmane Sonko jox ko jomaay te li gën a neex ngay ànd ak nit ki mooy mu mett nga ànd ak moom mu naqari nga and ak mom mu nek ci ay tolof tolof nga and ak mom kon tay ñoñu tok di xaar Ousmane Sonko ñoñu dañ ko mérito wala ñi tok di accueillir Ousmane Sonko ba dem tok camp pénal di ka fa xaar ñom ño xam li tax euh, ñu tok di xaar nga euh, ciofel ak mm. mbëggeel ci nit bu mm. naturel rek day neex mm. nga bëgg nit ki ta xolo ci ñaari junni wala ñetti junni yam lay may nit ki bokay bëgg rek xolo yermande gi nga am ci mom wala ciofel gi nga am ci mom te Ousmane Sonko ak Jomaay ciofel la Sénégalais am ci mom kon nañ nañ leen euh, lolu président wara def na ci gaaw euh, moo xam 22h lay doon mo xam 23h way ak ci lu mënti am dal xale yi nee nañ seen way ji fanaanaat tey si fofu noonu. wala heure xëdd bi dal hmm. ñu bàyyi leen ñu dem xëddee ji seen biir kër. Hmm. Hmm. alors euh joxatal ma Arfan dafa am benn information bo xam ne itam dafa wacc légui Arfan à la dernière minute le parti démocratique euh, sénégalais conférence bi nga xam ne itam doon ko tenir néna mi ngi sàkk pour ñu dissoudre le conseil constitutionnel alors ñoom avec une sur place ay preuves digganteeg ay tractations financières alors donc le parti démocratique euh, Sénégal gi que euh, ces instruments mettent en lumière les euh, des échanges entre l'ancien premier ministre